mooy xaalisu CFA bi nga xam ne sunu xaalis tubaab yi ñoom ñoo ko fi indi 1945 tubaab yi ñoo koy defar ba léegi tubaab yi ñoo ko garanti tubaab yi ñoom rek ñoo ko mën a dévaluer euh, ñun nag dafa jot ñu am sunu xaalis bopp boo xam ne ñun ñoo koy defaral sunu bopp ñun ñoo koy garantiral sunu bopp ñun ñii ñun ñoo ko mën a dévaluer ñun ñoo ko mën a réévaluer euh, loolu yëpp dafa jot loolu la ñuy wax tey. yàgg xeex euh, franc CFA bi. Euh, lu tax ñu ñu xeex ko c'est que dañu jàpp ne que euh, développement mu mënul am te moomoo sa bopp moomoo sa koom-koom te koom-koom jaar ci xaalis ci sa mone te tey suñu xaalis euh, français yi ñoo ko téye français yi ñoo koy defar français yi ñoo koy imprimer français yi ñooy définir valeur u xaalis boobu donc xaalis boobu mënoo ko wecceeku fenn fudul ci ci ci pays Europe yi ak ci pays États-Unis yu mel noonu ñu jàpp ni que il est temps que débat bi yéeg tuuti egg ci euh, population yi parce que lu tax ñu nekk ci ndóol lu tax ñu nekk ci misère ak pauvreté euh, franc CFA euh, am na wàllam ci lu ci lu bëri loolu moo tax il faut que ñëpp xam ne ni que tant que ñun mënuñu maîtriser suñu xaalis su fekkee ni ñun suñu xaalis ñu denk ko keneen ñu foog ni keneen dina mun a gérer suñu dund mieux que ñun suñu bopp loolu naxante bu mag la. donc loolu moo tax ñu nekk fii. li ñu mun mooy xëy na dóor ñu nit ñu dóoree wee fële ci aéroport li ñu mun mooy tëj ñu te loolu xëy na du euh, du tax ñun ñu dellu ginnaaw ci xeex bi man dama jàpp ne. taxawaay bi nga xam ne taxawaay bi nga xam ne moom lañu am ci franc CFA bi pour man dafa dëgëral xeex bi ndaxte depuis mois de janvier benn manifestation nga doon am fii ci Sénégal muy dakaar waaye bés bii nii tey waroon na am manifestation Kaolack waroon na am manifestation Tambacounda waroon na am manifestation Bambey waroon na am manifestation fële ca Kabrousse naam sax Tambacounda ak euh, ak Kaolack dañoo interdire manifestation yi waaye loolu lu muy tekki mooy sénégalais yi fu mu nekk nii bëggatuñu toog rek Dakar maanaam mbir mi mu ngi gën di law mu ngi génn dakaar te loolu kat day wane ne xeex baa ngi jëm kanam donte xëy na jàpp nañ ne des na parce que dañoo bëgg askan wi mu jóg taxaw fexe ba président Macky Sall ak yeneen président yi dégg li nga xam ne moom la askan yu bëgg mooy jatang bi dafa doy bu mu jàmm bi dafa doy.